ba mën koo def ngeen war a apprécier gis nga sénégalais genn wàll bi ñëpp dañoo soxor parce que amuñu ko man waxuma la sax dafa wax benn wax bu am solo te partagé naa boobu noonu ñëpp di ma ko laaj mu ne jëkkër soo ko dégg soo ko déggalee nga déglu ko lu ne mën nga koo am si moom te muy dëgg gel sax soo ko doxaanee mu déggal la am fu la teg lu ne mën na koo am si yow asama jabar ju la déggal toog man sama waxuma la sama bi dama koy def pour yedde ko ñenn ñi ci Sénégalais yi surtout ñenn ñi nga xam ne dañoo soxor ñenn ñi nga xam ne ay mécontent lañ ñenn ñoo xam ne gëmuñu dara parce que nit ku dem màggal Touba takki ay ooram takki ay ngalam takk lu ko neex yéen ñenn ñi Sénégalais yi di critiquer di wax di def di cëfër cëfër yi parce que da ngeen koo amul waaye ndaw soo su nga xam ne xaw ma ngoy ngoy lañ koy wax. am na ko ba di sunu borom di gërëm borom màggal bi yére fa nekk di mer di wax di katt katt katt li mu sol sa dafa tuuti daa waroon sol yére grand boobu yëpp or ma xool yéen li ngeen wax ban sens la am dem leen soo leen bëggee or ngeen koy liggéey baa ngeen dem déggal seen jëkkër yi baa ngeen dem respecté seen jëkkër yi waaw comprendre naa góor gu mënul mënul mais góor gu mën gu ne war naa mën a teral jabaram góor gu mën gu ne war naa mën a teral jabaram barke rasulaay si kaw sa jabar déggal la li may wax naan chaque jour rek borom xol bu bon du dugg àjjana gis nga nit di apprécier da see baax si àdduna Gambien ni loo def si ñenn ni ñi laa wax de dañ lay apprécier mais dinañ apprécier ku am sa or nga génne nga takk ku am sa or génneel nga takk am na oram génne na ko takk na ko loo si mën wax rek ngeen di def muy gërëm jëkkëram di gërëm boppam. trop wala jabar ju lay tiitaroo may ko jamaa te ngooñ sax xam naa ne ëllëg jamaa lay takk ay jamaa ay jamaa xam nga bàyyi leen mekkoon temps da la yéene nit ñi jàmm da la yéene nit ñi lu baax ku yor teraangaam ngeen mer ku torox ngeen yéene ko ko te dundulu leen te doo leen bàyyi nit ñi dund te dee bi dafa gaaw ana diw karjaag na ana diw deena ku am xaalisam ta koor ngeen ne caga la wala kii day dóor marto wala kii dóor kat la fen man ngoy ngoy dama ko fan parce que Serigne Fallou dama ko fan ngoy moom dama ko fan te ku xam fi mu dëkk rek wax ma man ma déplacé wu seet seeti ko man maay déplacé wu dem seeti ko parce que man dama bëgg jigéen bu naw boppam ñaw naw jëkkëram fonk jëkkëram bari na jigéen ñu bëri da leen defal tranga mook zéro ñoo yam bari na jigéen ñoo xam ne ay góoru doomi xat lañ bëgg ak góor gu bon ak góor gu yées soo amee jëkk jabar jabar jëkkër ju lay tiitaroo ni yées loo leen bëgg walaa kaana nit su ñëwee sax yori ay milliards sol sol sol carax ak t sol ay dàll yi tilim ngeen xeep ko soo leen jógee góor ñi dañoo mën a fen góor ñi nangam nangam wala nangam nangam parce que soo incarné li nekk si yow ngay incarné yow xale bu jigéen bu bëgg laa classe wala patron nga am góor goo xam ne da lay di la fen fen yi métti ba la da bëgg di gëm belle vie te dund leen belle vie nit ki nag suy dund belle vie am bàyyi leen ko mu dund belle vie tey su ma amoon jabar mu déggal ma am fu ma teg respecté ma jox ma cër bi lu mu bëgg si àdduna ma defal ko ko waxuma la la sa takk si màggal ba mais su bëggee këru or sax mootal ko ko parce que loolu dalay yokk pouvoir si si si doomu aadama mais nit ku màggali jëkkëram teral ko teral ko jox ko lu mu jëndee or muy jënd or di takk. ngeen bëgg ko soxore di ko iñaane ah te yéen ñiy soxor di iñaane yéen a gën a bon ñëpp yéen a gën a li am solo sa àdduna dundal li nga war a dund sa àdduna ku la yëg nga yëg ko ku la yëgul bu ko ku la faalewul bu ko faale ku la lijjanti bu lijjanti del def li dagg xolam te dara loolu mooy àdduna dund paradise dund dee dem àjjana xamoo ba xam fan nga jëm sa àdduna xamoo soo dee fan nga jëm soo xamul fan nga jëm nag dangay ngay teel a dund si àdduna daf li ngay def lépp dund li ngay dund paradise ndax tey soo amee oto yu rafet gaare ko dundal sa xol soo amee kër gu rafet nekk sax dundal sa soo amee say or say jamaa takk ko ñi ko amul yorul diw torox na wala diw nangam nangam léegi ngooy moom su génnoon sol ay sagar ñu ne waaw ay sagar la jot daa mel ni dafa daanu léegi yoratul mënatul loolu rek ngeen di yàqam si nit loolu rek ngeen di yàqam si nit defet defet rek ngeen yàqam si nit di nga ànd ak mbooloo bi ñëw dina dar mbooloo bi yëpp dañ naan yàlla na torox pour ñu kontaan yàlla na torox as néew ñoo la si bëgg te ñu lay bëgg sa poos tax ñu lay bëgg sax xam nga kon ngoy dundal li nga war a dund te bañ a déglu mokkontaan yi bu si tontu kenn li nga wax sa jëkkër rek macha allah. tey soo demoon allantaa tey keroog maa ngi sama mère yaay Awa Niang mu nga takk or yu dul jeex macha allah takk ay or yu dul jeex keroog ba ñu dem ba ñuy dem Dubaay man ak aadi doom ji ñaata la ma ñaata la ñu yóbbante si ay or doom ji ñaata oor la ko jëndal ah nit liy dundal sa xol da nga koy def senegal nag soo fi nekkee da ngay am cardiaque su ma gisee sa ku jóge Amérique sa ba ñu refoulé ko mu ñëw Sénégal bii da ngay dof. parce que nit ñi duñ la nit ñi duñ la mën a bëgg nit ñi duñ la mën a fonk te ñoom ñoo lay gën a ràngati diw daanu na diw yor ku si am góor gu baax nag da koy téye ku si am góor gu baax ak góor gu am yërmande téye ko xol kenn mënu koo changer si àdduna xol bu rafet kenn mënu koo changer mënoo fexe ba da bon mënul am ñi bëgg a bon ñooy bon ndax iñaan nag soxor moo tax fu ñuy mujjee feebar ba xëy entraîné xëy këntang dee ay wuyaay yooyu topp leen su nit di dund nga leen di dund su nit di am paradise ngeen du am pour lan mécontent bi ngeen war a bàyyi mécontent bu baax sax gel bu baax sax soo ko amee rek soo amee téeméeri oto war nga ko mën a bàyyee soo amee ay millions war nga ko mën a dénk ba si man mii dama lay génnal ni dénk ko ay millions yi millions samay oto yëpp falaa leen bàyyi jox leen ko adduna soo amee gel bu la dégg respecté la dundal ko soo amee jabar wax asamaa am jabar ju bëgg respecté la jox la cër xam sa gëdd xam la nga koy jariñ respecté ko mais am na jigéen ñoo xam ne bëgguñu lu baax te bëgguñu ànd ak góor gu baax. nga ñu toog seen xarit yi ah dafa may topp ba léegi wala damaa bëgg ba léegi wala mu may woo téléphone fekk la ñuy wax gëmuñu ko gëmuñu ko àdduna nekkal sa la nga nekk léeg nit dem yàlla gën laa teral léeg nit toog yàlla gën laa teral ku dem nag yàlla gën laa teral santal suñu boroom. parce que yàlla rek a fi nekk kenn fi ko sunu borom xam nga te ngeen bàyyi nit ñi di dund seen paradise ngeen am jàmm. noonu la rek man nit du jabar du gel du kenn naan Griff toroxal na ma dañaa ma Griff yow gel boo doxan ma ba ko sax mu sàcc jabar joo takk ba teral ko sax su ma la bàyyee laa lay gën a teral soo dof dof loo ma likkite la dof la nii croix parce que am na jigéen ñoo xam ne tànk yaa ngeen defal teraanga ñu toog seen xarit yi ah daf may topp ba léegi wala damaa bëgg ba léegi wala mu may téléphone fekk lañuy wax gëmuñu ko gëmuñu ko àdduna nekkal sa la nga nekk léeg nit de yéen ñi am jabar yuy muñ ak jabar yi bëgg a sëy ak jabar yi nga xamante ne dëggal nañ leen respecté leen ñooñu te bañ leen jëndee benn jigéen bu ñàkk fayda ak jigéen du ñàkk fulla ak jigéen ju tekkewul dara ku si am sa jabar mu lay muñal ba muy metti di ànd ak yow ba muy metti ngir yàlla teral ko jàppale ko xam nga waroo ko seetaan waaye topp xale jigéen ñi complet ñu lekk ba nga set ñu ne la ñu ko bàyyi toroxal la ay diw tooy naag xees naag macha allah fen rek. waxee jabar juma am nga dem ma dem teral naa la ba nga demee teral naa la ba nga fa nekkee teral naa la ba nga ñëwee teral naa la ba nga demee teral naa la waaye dafa am ñoo xam ne bëgguñu góor gu baax góor gu bon la ñuy wër seen àdduna xam nga fen nag dañuy fen ba abadan daay mi naa ñiy toog di toog ba abadan daay mi naa muñ yéen ñi am jabar yuy muñ ak jabar yi bëgg a sëy ak jabar yi nga xamante ne dëggal nañ leen respecté leen ñooñu te bañ leen jëndee benn jigéen bu ñàkk fay fayda ak jigéen du ñàkk fulla ak jigéen da ngeen bëgg belle vie te amu leen nangu leen liggéey nangu leen teg seen taat liggéey xam nga soo jógee daal góor ñi mën nañu mën a fen wala nangam nangam nangam nangam nangam du góor ñi parce que yéen bëgg a ay complexé ki yor na oto bu rafet kii li muy dawal nice na wala nangam nangam fekk kooku yoru sukuru mat yow lay jéem a dóor yow xale bu jigéen bi lekkal la nga yor ba pare fase la toroxal la yàlla bu ñu bokk si góor ñun ñun te li may wax si Sénégal laa koy waxee yàlla bu ma bokk si góor gu toroxal jigéen jabar ju ma nekkal bala wala